Bokar Abidou sëfle na Caatu Colobane Mbaye Maintien Caatu la ñu jàkkaar lool Mbaye Maintien Abu Abu ziar naa la Caatu Colobane Mbaye Abu ci loo ne noo gisee ñaari du mbër mu ndaw mbër mu mag la yàgg naa bëre moo nekk écurie mais nag boo xoolee Marley Marley moo ko entraîné tey bokk na ci Marley moo ko indi yaaw jàll mujjee daan. moom Mbaye Menthié Mbaye Menthié comme ah, ah, fa lay nga xam ne stade Léopold jour combat ak Eumeu Sène bu jàppee bay lamb ji jeex lu leer laa la wax ni Ousseyn doo xam wax nee na ma du ma moom. du ma moom déedéet ndaanaan la bu ko lamb ji lu leer laa wax ni ñaar jàppante nañu. Mbaye Menthié ca Colobane. Mbaye Menthié ak Jaatu Colobane ñoom ñaar. daa mel moo xaw a ëpp tuuti doole de. Mbaye moo ko sàcc doole Mbaye Menthié mi nga gis moo entraîné Balla Gaye entraîné Gakou entraîné euh, Bamba entraîné ak Omar Mouma fu ne a doon ànd dafa yàgg ci gis ngeen daa yàgg xale noonu. Mbaye Menthié caatu ko fay naa la. kii ma déet ma xamal nit ku baax la moom Ouzin. émission bi muy def bi nga xamante ne mooy jàmbaaroo mu ngi yëngal Sénégal di toj réew mi. maas bul wax loolu du yooyu yëfi idi la. émission boobu jaar na yoon yow mi Ouzin. ah bu kontaan naa yow dafa baax. ah déet du yow kenn du yow mais dama ne. journaliste yi bàyyi leen saraxu mbër yi ngir jëmmi Serigne Touba. xale yaa ngi noonu ci di géej bi. mbay meññee combat bi day bu moytul mbay mi jënd <coughs> koy songale point forum la. ba li nga wax waaw moytu da koy songale point forum la échange loolu lay wër nii xam nga xaritu Papa Thion la. daan na ko. daan na mbay caatu ko la baan daan mbay meñcee. caatu ko la baan daan mbay meñcee xëcc na ba mu ñëw mu tegal ko 16. mu tëdd ca. mbëru Wally Seck mi daanu na. mbay meñcee daanu na. écrit Balla Gaye am na benn defet ah. gis ngeen yaa ngi xëccoo tibal ma suuf jox ma suuf aarama kaay